jubbanti nit ñi nag bu ñu dëngee xawma kan mooy jubbanti euh, sa morom on nous informe que euh, tey ki nga xamante ne moo di euh, le premier ministre Ousmane Sonko a reçu euh, ce samedi Ahmed Salik le président Salik euh, le président de Salik Holding qui opère dans les domaines de l'énergie, des mines, du textile, de l'agriculture de la finance entre autres euh, moom mi la di euh, Ousmane Sonko photo yaa ngi noonu moom la ñuy wax ne kii mooy di Ahmet Salik euh, normalement il doit être un turc par rapport ak tour bi ma liir moom mi la di Ousmane Sonko tey ci samedi bi moom ma ngay recevoir ay nitam le PM. Euh, on on ne sait pas nag ndax moom le président aujourd'hui va être à la rencontre avec euh, son gouvernement wala moom kese moom mooy ñoo toog faire son discours wala fair son interview on va essayer de voir de toute façon Sénégalais <coughs> euh, yëpp a ngi toog di xaar hmm, li nga xamante ne moom mooy xew foofu la ci palais de la République tey ñuy vraiment xool fan la président di euh, mu jéeg sénégalais yi mais Mansour téeméeri fan ci ci gouvernance euh, jot na président wax ak askan wi wala président peut-être mënoon na euh, gën a liggéey ba ci kanam Euh, laataa muy àddoo ak askan bi euh, waay jot na euh, jot na waay pour man pour man jot na mu wax ak askan bi parce que bi ñu toogee ak léegi maanaam séparation bi nga xam ne gis nañ ñu koy jéem a def ci diggante ci diggante politique bi ak li nga xam ne moo seen liggéey daanaka tax na ba lu bari ci li ñuy def communication bi ci war dëgg-dëgg yëg nga ne résultat la ñu ëpp que communication maanaam li ñu li liggéey la ëpp ci wax léegi nag bu dee ne ci noonu ngay doxee ak amaana diabolisation yi la mm-hmm. yu bees yi nga xamante ni peut-être ñenn ni euh, leen gars di tooñee ay milliardaires lañ yoo xam ne am nañ ku leen waxal ñenn ñi amaana amaana yor nañ seen groupe de presse pour mën di wax li nga xamante ni mooy euh, li ñu lay contrer day baax euh, boo defee téeméeri fan. nga toog def bi parce que maa ngi koy wax rek démb Bassirou Diomaye bi ñuy gis tey. Mhm. du bokk yi ñu doon mujj gis. parce que bi ñu mhm. Mhm. ko waxee sànq ak Moustapha Diop maanaam dafa nekkoon Bassirou Diomaye Faye bu doon wër loo xamante ni ñi ko doon contre dañ doon wax ne xamu ko. Mhm. parce que dañ doon wax ne ñee xamuñu état xamuñu pouvoir xamuñu nangam. Mhm. léegi nag ñooñu yegg si au pouvoir amaana def fa téeméeri fan am lu ñu def am loo xamante ni itam defaguñu ko am loo xam ne itam askan baa kon ne di leen ci xaar. day mhm. baax jotaay bu ni mel tey euh, ñu amal ko léegi bu ko defee nag euh, yow Vito bi toogoon. doon xool Bassirou Diomaye Faye bi doon opposé euh, da ngay xam tey ne yaa ngi jàkkaarloog benn homme d'état boo xamante ni amaana xamagul lépp mais am na lu mu commencé di xam. ci biir discours am da ci mën a xamee ndax la ñu doon wax dëgg-dëgg bi ñu yegsee au moom la gis wala déet la doon wax ci ay ñaawteef yoo xam ne président Macky Sall nekkee woon na ko fi ndax bi ñu yegsee ci biir palais bi gis nañ ne loolu moo fi nekkoon wala déet waaye itam bi ñu yegsee ak léegi lan moo tax giseguñu kenn ku ñu topp ci alal joo xamante ni sàcc nañu ko wala boog itam kenn koo xamante ni ñaawteef def nga ko fi ci nguur gi weesu lan mooy expliquer loolu fan ak fan la ñu jëm alal ji ñu lebi naka lañ ko ko naka lañ euh, a baax xamante ni moo di eh, ni ñu duggee ci nawet bi ak nii leen ci taxawoo mm-hmm. tabaski gi weesu taxawaay yi nga xamante ni am nañu ko ci eh, bor yi nga xam ne jot nañu ko fay ci li nga mm-hmm. xamante ni moo doon eh, opérateur économie yi mm-hmm. ak itam bourse sécurité familiale bi nga xam ne fay nañu ko yooyu yëpp doon ay mbir yoo xam ne def nañu ko te amaana ñu bëri jàppuñu woon ne mënees nañ ko def ci waxtu wii parce que dañoo jàppoon ne ay gan lañ yoo xam ne li ñuy dugg ëpp na seen la ñuy def ba mooy Afrique dafa am beneen taxawaay boo xam ne daf ko tegaat comme bët ci biir Sénégal mm-hmm. maanaam Sénégal depuis euh, président Macky Sall nekk ci euh, dengi dengi dina def deuxième mandat wala troisième mandat wala déet dafa am beneen bët bu Sénégal amoon ci li nga xam ne moo di Afrique wala boog itam bët bu Afrique doon xool Sénégal mais bi mm-hmm. ñu yegsee ñu gis xam ne def nañu ko ci mm-hmm. parce que Diomaye gis nga fu nekk dem na fa ci Afrique daanaka euh, ba nga xamante ni CEDEAO am na kóolute goo xam ne peut-être am nañ ko ci moom ndax sax Sénégal day des ci biir CEDEAO naka la cay desee ak yan gis-gis lañ jàpp ne ay réforme yi war a indi ci biir sunu sunu mbokk pan panafricain yu bëri mhm. ñoom jàppoon nañ ne heure bi fekk na ñun ñu génn ñu génn bu yàgg voilà xam nga yooyu yëpp dafa doon ay question yoo xam ne ñun mhm. am nañu ko euh, maanaam Sénégal yi am nañu ko même même am na euh, bi gars yi bi gars yi les états de l'AES falo mhm. bi Bero am na sénégalais yi nga xamante ni ci campagne bi sax ñu ngi naan Euh, restez fort. Mhm. votre frère va vous rejoindre dans deux dans dans dans un mois. waaye loolu lañ jàppoon parce que parce que discours bi nga xamante ni euh, moom la suñu mbokk yooyu doon doon doon doon doon doon doon tenir. dafa mhm. méngoo woon niroo ak discours yi nga xamante ni moom la Pastef doon doon yoroon. Mhm. ba nga xam ne ku ci nekk da nga doon gis sa bopp ci biir Pastef léegi nag euh, ndax léegi méthode la wala boog itam yoon la ñuy xool yan pexe la ñuy xool. ba nga xamante ni CEDEAO daf fi des mais fexe mu doon suñu CEDEAO au lieu que mu doon CEDEAO bu bu France au lieu que mu doon CEDEAO boo xam ne daf fi nekk pour protéger ñi nga xamante ni moo di euh, chef d'état yi mm-hmm. non non non du mën a nekk mais day nekk CEDEAO boo xamante ni vidéo la fi nekkal mm-hmm. askan wi la fi nekkal loolu jàpp naa ne mooy li am am solo mais mm-hmm. amul benn intérêt ci nga tas CEDEAO après dem di créer waat leneen li am solo mooy CEDEAO du trouver bon du leneen ma bon mais doxalin bi amaana ci la askan bi dul gis seen bopp léegi nag ndax gouvernement bi yegg ci en place day bokk ci seen mission ñu fexe ba ragg deru CEDEAO yi ñu war a def ñu def ko ci après fexe ba mu des ak ñun wala euh, dañuy dem ci beneen côté bi loolu yëpp ay question la yoo xamante ni mhm. askan bi am nañu ko ci président bi yegg si tey te itam euh, jàpp naa ne CEDEAO ci boppam xam nañu ne jomaay euh, dafa am benn impact bu mu ci am mhm. parce que le fait ñu jàpp ne euh, dañ koy jël mu nekk benn facilitateur ci mhm. seen diggante ak li xam ne moo di AES jàpp naa ne xam nañ bu baax a baax lañ lay peese ndax Sénégal jamono bi ak euh, ni Diomaye yegsee président xam ne 54 vingt 28 pour cent mhm. ak doole ji mu yegsee xam nañu bu baax a baax ne euh, Sénégal jamono bi moo yor euh, mhm. cëggal guyam wala boog itam moo yor li xam ne mooy dernière kàddu gi mhm. fu mu jëm mën nga jàpp ne foofu mooy fi ñëpp jëm bu tànnee CEDEAO CEDEAO lay doon waaye bu tànnee feneen itam feneen lay doon yooyu yëpp ay question la yoo xamante ni dañ koy xaar tey ci le ndax discours ba mu doon wax avant mu am soppaleku ak bu tay bi Euh, du ñàkk fileeg euh, ay minutes wala boog itam fileeg ay euh, waxtu dinañu xam dëgg-dëgg lan mooy ëllëgu Sénégal ak hmm. Afrique wala boog itam lan mooy ëllëgu Sénégal ak li nga xamante ni moo di CEDEAO ci boppam. ëllëgu Sénégal ak CEDEAO CD CEDEAO ci boppam 28 heures moom ngeen di. seetaan en direct ki nga xamante ne moom moo di le président de la république Bassirou Diomaye Faye mu àddu ak euh, li nga xamante ne euh, ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy sénégalais yi wax ak ñoom lépp li nga xamante ne euh, ñeel na cent jour de gouvernance yi nga xamante ne moom la fi am moom mi nga xamante ne moom moo di Bassirou Diomaye fal na gouvernement am depuis lors premier ministre Ousmane Sonko gis nañu seen i ministre gis nañu seen i doxalin gis nañu peut-être euh, li ñuy def ci agriculture wala li ñuy def ci baisse de prix li ñuy def ci yeneen ak yeneen ak yeneen pétrole bi nga xamante ne découvrir nañu ko euh, fii ci biir Sénégal ak yeneen i mbir yi nga xamante ne c'est énormément de questions yoo xamante ne war na cee wax war na cee àddu moom mi nga xamante ne moom moo di euh, son excellence monsieur le président Bassirou Diomaye Faye Euh, donc à partir de vingt une mun ngeen ko euh, xaar fii nga xamante ne moom moo di 313 euh, digital Mansour mu ngi fi di leen gunge ci kanam tuuti dinañu am euh, yeneen i gan yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw aussi euh, fekk ñu ci bile jotaay euh, je vous rappelle que vous êtes sur 313 digital n'oubliez pas de vous abonner d'activer vos cloches de notification te xam ne 313 seen yëf bopp la Mansour ba tey 100 jours gis nañu ki nga xamante ne moom moo di Basirou gis nañu gis nañu ki nga xamante ne moom moo di Bougane Gueye Dany nee na dina jàkk jàkkaarloo ak askan wi suba defe naa gis nañu ki nga xamante ne moom moo di Thierno boobu nee na moom tamit dina jàkkaarloo ak askan wi bu président de la république waxee ba noppi euh, opposition bi ils sont dans le rôle wala voilà, euh, exactement ban gis-gis nga am ci loolu noonu way xam nga mhm. bu dee ceex copain ceer Thierno moom xam naa ne. Mhm. Eh, Thierno bokkum moom euh, peut-être euh, wéetaay wi ko Ousmane wéetal ci Facebook bi. Mhm. dama jàpp ne bokk na ci li koy animé wala bëgg itam ci li koy euh, tax a jóg. mais bu dee la côté de Bougane Gueye Dany bu ma juumul moom conférence la woote woon. waaw ak Grand Théâtre le 16 après mu ne comme day tombé tam xarit bi bàyyi ko waaye dina wootee li nga xamante ne moom moo di kii waaw <laughs> ah, bésu cere moom. defe naa ne mënta ànd ak wax. voilà am na ku may tooñ sax ma ne ko bon wax nga dëgg bugaan juumul nag parce que bu dee gaz bi ko booy duppee. Mhm. xam nga gaz moom ci tam xarit jàpp naa dina am jotu leneen lu dul dem grand théâtre di <laughs> wax amaana moom la ñuy toggee cere tam xarit bi donte na du fekk booy ci liñ koy tooñee quoi <laughs> <laughs> mais euh, li am solo rek mooy euh, censure yi jàpp naa ne dina jafe lool nit taxaw ci war boo ko tam oppo ab opposant war ci taxaw indi ci benn critique boo xamante ni bu tegu fu dëgër lay doon xam nga boo seetloo le président Diomaye Faye bi mu yegsee ak léegi moo ne ñi mu demuloon ci élection yi comme candidat yëpp gis goo kenn koo xamante ni génn na wane boppam ci biir terrain bi nga nga xam carrément fan la taxawee ci euh, mhm. position que day opposé parce que mhm. bu dee ne yow mi nga xamante ni mënoo mënoo woon am parrainage bu dee mhm. yow mi nga xamante ni euh, peese goo sa bopp ci élection ba léegi parce que bu dee Bougane Gueye ba léegi moom xamagul lan lay peese ci li nga xamante ni